Sam Samba Sour laa tudd. accident fi la la fekk. si waxal tur bu baax. Samba Sour. accident bi fi la la fekk. si waaw fi la ma fekk. naka la demee. Euh, actuellement bi may ñëw boobu maa ngi jógee cité Kër gi di wàcc ñëw fii nii ci pont bi. vers six heures yooyu noonu sept heures moyen. bi ma ñëwee maa ngi fekk. Euh, boobu bu fekk na accident bi amagul dama ñëw taxaw ci pont bi sustu rek seen oto bi di xandaalu ci tali bi oto kii bi oto bële moo njëkk a dem ni ñu ko xatee oto bi apprenti yi nekk moo njëkk romb bi mu rombee ci la laal oto femme bi fekk femme bi moo ngi gaale woon benn oto kii comme genre seen oto yu ndaw yi tu vois léegi bi mu génnee biñ laalee kiyam bi mu toj mu génn di def intervention foofu di xool fekk oto camion jën bi mu ngi ñëw bi mu ñëwee ci la laal ci la ko euh, laal mu daal gaañu sur le sang léegi avant muy kii am na benn agent sagam bu ñëwoon bi mu bi ñu laalee kii bi agent sagam bi mu ngi ñëw di def bi mu laalee femme bi ñëw moom it gaañ aussi agent sagam bi ci la agent sagam bi gaañu ñoom ñaari ñëpp ñu daal di gaañu. dañoo ñàkk sur le sang waaye non agent sagam bi après gaañoogul moom yéex na gaañu ndax da doon def sukuraat waaw agent sagam bi da doon def sukuraat gaañuwul sur le sang waaw nekk na fa mais li ma ci gën a yi. ñëwuñu man koo man koo tenir jàppale ko mais dañoo yoroon seen téléphone yi kenn ku nekk di caméra di def ay nag sëdu noonu tu vois waaw kenn ku nekk yaa ngi caméra ñenn ñi moom di def seen i affaire waaw non xam nga ñaata nit ñoo ci ñàkkandum seen bakkan actuellement kat laa ci gis ñoo xamante si nii gaañu nañ sama kanam man fekk nga accident bi wax nañu ne oto yi dañ doon jëkkante est-ce que ndax oto yi ñaari oto camion yi ñoo ngi doon jëkkante oto bële aussi seen yoon nekk yoonam nekku ci mais dafa amoon client ci la gaare woon foofu waaw ah, ci la gaare woon di wàccee client am oto bi bi oto bi bi mu mbëkkee oto jën bi oto jën bi aussi moom moo dem mbëkkaat eh, beneen oto boobu. lan ah. mooy sa jàngat ci accident yu bari ñuy nemmeeku. waaw xanaa accident bi moom vraiment métti na te xam naa ne moom lépp aussi jeunes yi la ndax xam nga tëli bi aussi dañ cee war a daw ndànk dal ci ndànk waaw ah, ndax tëli bi aussi mooy loolu waaw accident bi daal xam naa ne moom. tey boo ko fekkoon seram day daw ndax dafa mel na fi mu toll ni ay xar yu dee ci tali bi sûrement boobu fekk na bareeguñu tali bi oto yi aussi ñoo ngi romb passage bi nii mais vraiment ñun dafa dawoon suñu yaram am na beneen kii boo xamante si ni maa ngi rappelé wu maire am na maire bu nekk fële di jaay kii euh, di jaay ndeke bi action bi amee daw na def intervention mais sur le sang gars yi dañoo sàcc gaasam bi moom it dañu sàcc gaz bi xam nga sénégalais yi da ngay waaru ñi ñenn dañoo mel di ndut tiit waaw alors que ñenn ñi ñoo ngi yore seen téléphone yi di caméra alors que ñu mën a sowee ki agent sangam bi bu ñu ko sowee woon yàlla moo yore bakkan aussi mais buñ ñu ko woon amaana man naa mën naa mucc ndax yeex naa yéex naa gaañoo waaw.